ñàkk tey daf ñu féete woon ci ñeenti boor sama kilifa la woon sama conseiller sama xarit féete ma fu ne sama goro la beneen bi wàllu Medina Baye nekkoon xaritu xalif bi nekkoon xaritu imam nekk xaritu waa Medina yëpp di xaritu tijaan yi di xaritu murit yi di xaritu ñëpp ba nga xam ne xamee woo ban tarixe la bokk fii ñu toog nii at bu jot fi lay teralee yonent bi sallallahu alayhi tàntal ko fi tant bu rëy di ko gàmm Ousmane di sunu mag ma xamanteeg moom 1982 am respect ci administration am xam-xam moom Ousmane ciblage la ko yàlla mën loo ciblage bi pour mën a saytu a saytu xale yi yi nga xam ne dañu pauvre mu di leen taxaw nga xam ne boo koy seet ba mu yàgg da ngay xam ne dimbalu yàllaa ngi ci parce que kuy dimbali néew ju doole lu muy doon doon administration yàlla dina ci fay man nag mu dem ba weesu sax mbiru àddina weesu ministère muy sama càmmi